asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci seen seen seen codeur donc euh, tey li ñuy def mooy dañuy euh, def sélection voilà sélection daa Word parce que Word bu ngeen bëggee euh, def modification ci police bi wala paragraphe wala lu mu ci mënti doon il faut nga sélectionné ba pare voilà donc sélection dafa nekk loo xam ne mënul ñàkk ci Word il faut ngeen maîtriser ko donc tey loolu lañuy ñuy def ci vidéo bi. maintenant euh, sélection nag bëri na ay façon par exemple bu fekkee ni ci Word da ngaa bëgg benn moo da ngay ñëw ba ci mot bi par exemple fi am nañ vidéo da ngay ñëw ba ci moo bi ñu def double clic comme ça automatiquement dañuy gis ni sélectionné nañu moo bi voilà mën nañoo essayé waat mot professionnel ñu def double clic donc dañuy sélectionné moo bi donc pour sélectionner un mot c'est double clic voilà léegi euh, mën ñoo sélectionné tamit benn ligne comme fii nii ligne yi ngeen di gis ay ligne la mën nañ koo sélectionné donc pour ñu sélectionné ligne dañuy indi souris bi ci marge bi comme ça donc bu ngeen seetloo souris bi bu nekkee ci ligne bi form bi muy jël ak bu génnee forme bi muy jël su defee lu mel ni flèche pointé ci ci ligne bi donc bu ñu benn yoon rek dañuy gis ne que sélectionné nañ ligne bi voilà donc mën nañoo wàcc di cliqué gisoo maintenant dañuy sélectionné ligne yi comme ça donc bu ñu bëggee tamit maanaam mën nañoo bu ñu cliquer au lieu nga def cliquer bàyyi mën ngaa cliquer euh, nga maintenir clic bi après nga glisser comme ça donc bu ñu ko defee dañuy gis ni dañuy sélectionné ndoo yu bëri voilà donc lii tamit euh, manière la pour sélectionner amaa nañ tamit benn façon pour bu ñu bëggee sélectionner euh, bu ñu bëggee sélectionner hmm, benn paragraphe donc dañuy def euh, dañuy def triple clic dañuy def trois clics comme ça gis ngeen donc bu ñu defee trois clics automatiquement dañuy sélectionner paragraphe bi mën nañu ñëwaat fii nii defaat trois clics dañuy sélectionner paragraphe bi fii aussi voilà dañuy sélectionner paragraphe bi voilà amaa nañ tamit beneen euh, manière pour sélectionner mooy dañuy def euh, glisser quoi dañuy balayer par exemple dañuy ñëw ci moo permettre bii nii hmm? dañuy cliquer maintenir clic bi après ñu ñu glisser comme ça dañuy cliquer maintenir clic bi ñu glisser comme ça donc bii la ñuy woowee euh, sélection balayer voilà donc dañuy cliquer maintenir clic bi ñu glisser donc lii tamit benn façon la pour sélectionner bon amaa nañ tamit beneen beneen manière pour sélectionner par exemple tey bu ñu sélectionné woon moo vidéo bii nii ñu bëgg a ñëwaat sélectionné waat mot euh, mot professionnel donc tey ji buñ sélectionné moo vidéo nii comme ça buñ ñëw ci professionnel buñ ko sélectionné avec double clic dañuy ñàkk sélection moo bi voilà donc bu fekkee ni dañoo bëgg a sélectionné doo ñaar yëpp nga xam ni tey bu ñu sélectionné mot professionnel dañuy maintenir sélection bi voilà euh, ñu sélectionné moo professionnel donc ni ñu koy defee mooy dañuy njëkk a sélectionné mot vidéo ñu ñëw ci professionnel mais balaa ñuy def double clic dañuy bës touche contrôle comme sax ba pare soo ko bës touche professionnel soo ko def double clic comme ça dañuy gis ni am na ñaar yëpp voilà mun ñoo ñëw def ko page comme ça ngeen voilà donc lii nii touche contrôle moo ñuy permettre ñu def genre sélection yi nii touche contrôle même ci ligne yi aussi mën ñoo sélectionné benn ligne bës touche contrôle ñëwaat fii sélectionné waat yeneen ligne voilà donc touche contrôle dafa ñuy permettre tey euh, ñu sélectionné euh, ay parties yoo xam ni maanaam euh, tey jii ñu am benn mot fii ñu sélectionné ko amaat beneen mot feneen ñu sélectionné ko donc touche contrôle loolu la ñuy permettre ñu ñu def ko voilà donc mën nañoo tamit sélectionné tout voilà donc c'est contrôle A raccourci contrôle A moom moo ñuy permettre euh, ñu sélectionner tout voilà donc euh, voilà je crois que avec technique yi ma leen jox donc mën ngeen cee sélectionner lépp lu ngeen bëgg ci document bi voilà merci